man sëñ bi dafa ma waxoon ni ma ma dikkee gisuma la ngay samp ngay samp parti politique li ma la gis mooy ngay liggéeyal askan wi liggéeyal askan wi nag du tee ma man yëkkati si biir liggéeyu askan wi la bokk mën yëkkati sama kàddu woote jàmm si réew mi ba fàttali ni si julli gi tabaski bi nu ju génne naa message boo xam ni woote jàmm rek ci réew mi la nee naa réew mi lenn ko jib mooy jàmm Sénégal fi mu àgg tey pétrole ak góor fa ndax pétrole bi ñu koy soog a jëfandikoo or bi ñu ko yàggee jëf euh, jëfandikoo kuñ ca or bi ñu ko yàggee bi ñu ko jëfandikoo yàggagul waaye nag jàmm di sax ay stabilité loolu moo war tax Sénégal ak si fu mu ak si ñun nag war nañu góorgóorlu ñun ñëpp liggéey si jàmm du tee nag ku nekk sa wareef ak sa bëgg-bëgg nga dund ko nga taxaw dund ko ba mu mat sëkk loolu mooy dëgg kon euh, maa ngi woo xam naa situation bi doy na waar waaye nag lenn moo moonu see jële mooy lu waay lu nit ñi gën bëgg taxaw laaj seen wareef nañ si boole di waxtaan réew mi kat kenn mënu ko doxal te waxtaanu loo su dee pouvoir mënu ko doxal te waxtaanu loo opposition opposition mënu ko doxal te waxtaanu loo pouvoir gis nga assemblée bii rek ni mu jafee loolu sunu boroom moo noo war rek ban tegtal la Sénégal ban teg yoon la Sénégal war jaar Sénégal ban yoon la war jaar mooy ki nekk wax taxaw laaj sa waaye nag ñu boole di waxtaan assemblée bi tey ñi ngi bëgg samp bureau mais suñu waxtaanul ba seet fan la ñu jëmale bureau bi daan toog ay fan maa la ko wax du samp bureau bi du samp bureau bi ndax nekk dana nekk situation bu jafe su fekkee ni dañu bëgg jël rek ay règle majorité lu ñëw ñu voté ko te waxtaanunu loolu dina tax assemblée bi nekk na dana jafe trop ndax du bés bu nekk la député yi di daje te da ngay seet ñee 83 député lañu am ñi am 82 su fekkee ni ñii matal nañu ñee matalanu am ñoo xam ne am nañu dëj am nañu ngénte am na feebar nañu walla nàngam assemblée ba bloqué kon nañu waxtaan waxtaan du tee nga wane fula nga laaj say wareef waaye nañu waxtaan loolu rek lay digal sénégalais yi ni leen ak fu nu mën doon assemblée ak faneen nañu waxtaan ba bu kenn yaakaar ni réew mi taal ko wala indi fitna moo koy jur ku ko yaakaar ko nekk rek la muy jur mi lenn lenn moo ko mën jëmale kanam mooy jàmm ñëpp nag am nañu droit wut ko si fulla ak si taxawaay boo xam ni da ngay wax ni nii lay demee waaye nag seet seetal la gën doon jàmm nga mën ko jëm ndax kat sëñ Tuubaa moo wax si boppam nee na fii fii nu nekk si àddina ak àllaaxira gënu jëm gisul lu fa ëpp lu fa ëpp valeur jàmm nee na suñ borom sàkku lu fa ëpp valeur jàmm àddina bi soo amul jàmm doo tal jàmm yàlla doo tal dund seenu jëm soo amul jàmm yaa ngi si fitna yàlla nañu yàlla jox jàmm mu jox ko Sénégal Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg te wér